ca complexe professeur Amadou Tidiane Ba ñu ngi fay fekk professeur droit ba nekk ci ñangalé mi. dorat nan ñang ak ñangalé ca université Assane Seck bu Ziguinchor ginaaw bu ñu ay weer te mbas mé ko waral la yi ñu fa fekk nak ñu ngi joxé sen xalaat ci bëss bu njëkk ba. wa reprise bi ñu ngi koy gissé si euh, si benn timidité parce que actuellement étudiant yi ñi Nyene nguñu ñeneen ñi ñi ngi ñi ngi màggal yi ñeneen ñi aussi dañu fogg né en tout cas jang bi commencé gul. actuellement université bi cours université cours yi commencé mais jusque là euh, les étudiants sont pas sont pas venus quoi. instant yi moom kontaan nañu nu ñu reprendre euh, comme ça dinañu nous permettre ñu ñu toll ak nous yeneen morom yi ñi nga xamante nous ñoo ñu parce que lii ñu ko daan xaar lu yàgg toog nañu la yàgg vacances yi yàgg na aussi ñëw tey ñu reprendre aussi loolu lu ñu day doon lu ñu neex daal ndax ñu loolu la ñu bëgg. nemmeeku na ni itam ñenn ci étudiants yi nag ñëw ñu fekkee boobule ubbite ñi ngi xamal ni kii ñenn ci ñoom nag ca Touba lañ wutali ngir dem fekkee màggal bi. ñu ci bëri mooy dañ maa contacter ne ma dañuy fekkee màggal bi ba pare balaa ñuy ñëw école mu am nag ñi nga xam ni dañoo bàyyi carrément parce que nee nañ mënatuñu continuer. vu que dañoo toog lu yàgg jànguñu donc ñu découragé dem xooli feneen. dorteelu njàng mi ñu nemmeeku ca université Assane bu bu Ziguinchor firnde na ni kii diggante étudiants yi ak ñi nga xamante nag ñoo yore boobule daara ju kawe ay waxtaan dox na seen diggante moo tax it nag ñu nemmeeku ab dal ci ndorteelu njàng boobee. di fàttali étudiants yi jàngee foofee ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñu ngi doon xamal ni kii daañu boycotté mu rëpp bu fekkee ñenn ci ponk yi nga xamante nag ñu ngi ko doon sàkku jëfeewuñ ko. am na loo xamante ne suñu autorité yi. Euh, def nañu ko ak loo xamante ni aussi ñu ngi koy def ndànk-ndànk am na aussi loo xamante ni ba léegi daal defaaguñu ko donc euh, ñun daal lu ñuy wax daal euh, ñun en interne dañoo toog waxtaan gis ni il faudrait que ñu suspendre pour le moment le mot d'ordre. année universitaire bi ni mel nag ab défi la ci ki nga xamante nag mooy recteur bu bees ba indi ci ak directeur Crous ñi nga xamante nag ñu ngi leen di teg ci bopp université Assane Seck bu Ziguinchor yàggul dara.